ndax euh, woote nit ñi ñëw wuyu la surtout ci wuyu boo xam ni teguwul ci benn intérêt loolu lu jafe la kon boo ko amee ñi la wuyu si da nga leen war a gërëm waaw boobu ba léegi fan yëpp yéen a ngi dégg ñu ngi def ay annonce di woo am di jàmm yi ngir dañoo waroon a am gan fii ci Thiénaba gan gu xam ni gan gu màgg la ci ñun mu di Birame Souleye Diop di administrateur général bu partie PASTEF partie bi nga xam ni moom la Ousmane Sonko jiite rax ci dolli muy le coordonnateur départemental de Thiès gan googu bu ñu koy am fii ci Thiénaba euh, yaakaar naa ni du gan gu ndaw euh, ñu nit waa Thiénaba yàgg ngeen ñu gis fan yi yàgg ngeen ñu gis at yi yëpp ñuy yëngu ci partie bu ñuy wax PASTEF euh, loolu tax na ñun suñu teewaay mooy bëgg leen a xamal ki nga xamante ni nii ñi nga xamante ni ñoom la ñuy àndal ci Pastef ngeen xam ñan ñooy ñan ak li nga xam ne nii moo tax ñun ñu war suñu tànk tubay di ànd ak ñoom Birame Souleye Diop wax naa leen sànq ni leen mooy administrateur général Pastef donc kon post bi mu occupé ci partie bi du lu ndaw ñuy ànd ak moom nag ànd ak Ousmane Sonko di liggéey ci partie bi li waral loolu it mooy moom mii ci ni ñu ko gisee ak ni ñu ko xamee benn bi moom nit ku nit ku jub la nit ku dëggu la nit ku am diine la tamit mi ngi bokk ci famille Ndiéguène te famille boobu ku ko dégg ci Thiès xam ne famille diine la bu ñu waxee diine nag diine jikko moo ko lal donc jikko ji lañ bëgg a seede foofu loolu bokk na ci li waral suñu suñu ànd beneen bi nit ku am xam-xam la macha allah fa mu nekk di fa liggéeyee wane na ko fa mu nekk di fa liggéeyee xam-xamam ak am njàngam moo ko fa yóbbu du poste buñ ko jox ci wàllu politique waaye am njàngam ak i diplôme moo ko fa yóbbu kon loolu day wane xam-xamam te di fa def defit liggéey bu mucc ci ayib bi ci des mooy ku am vision la tamit ci Sénégal vision boobu mu am Sénégal Ousmane Sonko am ko ñoom ñi fondé partie Pastef am ko moom moo waral ñu. fondé parti bi pour seen vision boobu ñu mën ko matérialiser ndax am vision baax na am gis-gis baax na waaye boo amul foo ko mën a matérialiser vision boobu du am benn njariñ loolu rek a tax ñu fondé parti Pastef ngir vision boobu ñu am ci Sénégal muy Sénégal gu mucc ayib gu jëm kanam ñu tënk ko ci benn euh, ay baat yu gàtt rek loolu moom moo tënk vision Pastef bi yëpp loolu ñoom ci lañ taxaw ci lañ fondé parti bi ñun tamit ñu gis ni suñu vision suñu gis-gis suñu bëgg-bëgg ci senegal dëppoo ak loolu ñun ñu tourné ànd ak ñoom ci politique boobu ndaxte politique moom mooy tax nga egg fa nga xam ne fa la ñuy décider boo eggul fa ñuy décider li nga bëgg a taxawal mënoo ko taxawal ñeneen ñooy teg féete sa kaw di doxal li ñuy doxal mu lay neex mu lay yi donc boo bëggee loolu jóge fii il faut que nga engagé wu ci politique tàllal nit ñi sa loxo ngir ñu mën la yóbbu ba foofu nga mën fa décider. loolu moo ñu dugal ci politique waaye waa parti Pastef ku leen gis xam ni duñu ay politicien bu ma ne politicien nag mooy ni ñu ko déggee Sénégal ndax boo da ngay dégg léeg-léeg nit wax ba pare ñu ne loolu da waxu politicien la wala waxu politicien jarul dóor sa doom déggin boobu ñu am ci politique ñun waa Pastef duñu politique noonu moo tax ma ni duñu politique duñu ay politicien di moins koo gis ci parti Pastef am na métier am na liggéeyam mi ngi cee dund di ca donc dugguñ ci politique pour dunde politique waaye pour dundal pour nekk ci APR askan wi moo leen ci dugal ñun ñi ànd ak ñoom it ci Thiénaba du us biram Birame Souley wala Ousmane Sonko moo ni ñu représenté leen ñu Thiénaba bu ñu falo am lu ñu leen jox déedéet loolu lu ñu ci du it ni ñu représenté leen Thiénaba bu ñu faloo am fu ñu leen teg loolu dugal lu ñu ci li ñu ci dugal mooy dañoo gis ni lépp lu ñuy yëngatu ngir askan wi la ngir askanu senegal la ñu nit ñu ñëw jàpp ci ngir loolu ñu bëggal Sénégal yàlla may leen ci ndam loolu moom moo tax ñu ànd ak ñoom ànd ak Birame Souleye ba ànd ak Ousmane Sonko ànd ak ñëpp ñi nga xam ne nii ñi ngi ci Pastef gis nga délégation bu am solo bi mu àndal ak i jigéen ak ay góor am solo ñëw fii seet suñu ngir saafoonteeg ñoom gën a xamante ak militants yi ak sympathisants yi gën leen tamit ñaax ngir ñëpp jàpp ci projet boobu parce que projet projet Pastef du projet ñetti nit du projet ñeenti nit du projet groupe mais askan wi yëpp la képp ku ci nekk gis nga ci war nga ci gis sa bopp képp ku ci nekk war nga ci bay sa waar képp ku ci nekk war nga ci taxaw c'est un projet citoyen képp ko citoyen devoir la nga taxaw ci loolu ngir loolu mën a nekk loolu nag moom moo ñu dugal ci politique bi te loolu lañ leen di woo tamit ngeen jàppale ñu ci ngir loolu ñu mën koo réaliser ngir intérêt Sénégal ngir intérêt Thiès ngir intérêt Thiénaba tamit ndaxte tamit dañuy bay dangay ngay tàmbalee say wóom Thiénaba la ñu am ci Thiénaba lañ bëgg a commencé loolu mu law jëm ci Thiès jëm ci Sénégal gi yëpp loolu lañ bëggoon a ubbeel ñi ngi nuy ñëpp di leen gërëm di leen wax ñi ñi ngi jox kàddu gi euh, coordonnateur monsieur Moussa Ndongo bu fekkee am na ay kàddu ñu ciy sànni mu joxal ko salaamaaleykum wa rahmatullah aousubillahi min asheytani irajim bismillahi irahmani irahim wasalatu wasalaamu ala ashraf almursalin sayidina wa maulana wa habibina mouhamadou rasulullahi salallahu alayhi wa sallam mbokk yi bi ñu santee yàlla julli ci yonent bi salallahu alayhi wa sallam ñu ngi wax asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu di tàmbulee nuyoo ci suñu xalif xalif général de Thiénaba muy Serigne Abdourahim Seck yàlla na ko yàlla may tawfiq yàlla may ko yàlla defal ko ndam ci ci liggéey bi buñ ci jógee ñu ngi nuyu imam ratib di ñaan yàlla yëpp julli bu jiite yàlla na ko ci yàlla defal tawfeex di nuyu Serigne Alsane ñaan à travers lui ñu ngi nuyu population Thiénaba yëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp di leen euh, jaajëfal ci wuy bi parce que léegi jamono dafa xat trop waaye woo si la ñu wuy si la loolu lu jafe la kon ñu ngi leen ci sant yàlla di leen ci ndokkeel di remercier aussi suñu leader politique yi nga xam ni ñoom ñoo bokk langue politique bi mais macha allah lu rafet rek moo nekk suñu diggante gis nga macha allah sëñ Khalifa Ndiaye ñu ngi délégation ñeneen ñi aussi yëg bu euh, mel noonu la am ci ñun ñëpp parce que ñun politique bi dañ koy dañ koy rafetal macha allah. tey nag ñi ngi am macha allah gan goo xam ni gan gu tedd la muy Serigne Birame Souleye Diop mu jógee ba ba Thiès. ñëw bokk ci kër gi parce que moom jarbaat la ci Ndia moom moo nekk administrateur général di parti en même temps le coordinateur départemental gis ngeen macha allah délégation bi mu fi euh, bi mu àndal nii mu ñëw pour ñaari mbir ñëw pour ziyaare sëriñ si ndokkee leen tàllal leen ay loxoom ñu ñaanal ko mais également mu ñëw ngir dox mbokk parce que dox mbokk moom yàlla moom moo ko santaane kon mbokk yi ñu ngi leen di jaajëfal xam naa kàddu yi moom du du gudd ñun li ñu tàbbal ci politique daanaka mooy euh, responsabilité boo xam ni euh, actuellement nii foofu lañ toll. parce que ma Madické Seck da doon wax naan jamono fi mu toll nii daanaka sayu matt wu tas la kenn ku nekk nag yaa ci boole sa bopp. nous sommes à la croisée des chemins booy xool politiciens yu njëkk yi dañ leen daan jaawale ak ak ak toq. ou bien am euh, ak ak picc yi dafa am benn picc boo am euh, benn saaku dugub boo xam ni dafa nekkoon ci kaw donc picc yépp lott pour mën a naaw ba yéeg ci kaw léegi ñu ni dañuy choisir toq bu ko defee toq ci boppam ñun ñëpp picc yi ni dañuy jël seen kenn ku nekk sab dongu da nga koy jël jox ko toq bu ko defee toq moom saaku dugub ba nekk ca kaw bu demee dina am laaf yoo xam ne laaf yu bëri la dina mën a naaw bu naawee ba ca kaw nag ca saaku dugub ba fa mu nekk ca kaw bu ko defee mu bënn ci suuf dugub ji di di di wadd di walwali ñëpp mën koo bokk fort ci suuf ñëpp nag buñ dëppoo ci loolu daal di jël seen dung yëpp jox ko toq toq yéeg ba ca kaw daal di bënn saako ba ca kaw alors que mu bënn ko ci suuf mu bënn ko ci kaw moom kese mu koy lekk donc politiciens yi noonu lañ leen jàppoon c'est-à-dire ñoom li leen intérêt c'est kese mooy l'intérêt personnel mais c'est pas l'intérêt de la communauté ñu koy misaal également ci oto boo xam ne dafa panne borom oto bi day ñëw ni kaay leen puus ma gars yi ñëw dajaloo puus ko mais daanaka bu oto bi déparé sax ñi ko puusoon du leen gestu ñun nag Ousmane Sonko bi mu ñëwee ak Pastef ñu ni nous nous allons mettre la préoccupation ou bien politique autour de la préoccupation des citoyens mooy lan mooy politicien bi warul jiite intérêt personnel mais li koy intérêt intéressé mooy intérêt général li koy intéressé mooy intérêt général politicien bi moom dafa war a nekk mbindaan pour askan bi donc lépp loo xam ne askan wi da ko soxla moom da ko dafa war a jóg taxaw ci bu ko defee moom mooy seen bindaan mais askan wi warul warul warul nekk seen buur moom mu nekk ci kaw ñoom ñu nekk ci suuf moo tax bi ñu gisee vraiment Pastef ñu ko tëgg ñu xool ni li ëpp solo Pastef mooy suñu patriote du Sénégal patriote du Sénégal mooy lan mooy ñi nga xam ni dañoo bëgg seen réew seen réew jaral lu leen lu nekk ba pare ñu jiital lan le travail parce que liggéey moom mooy développer réew ba pare liggéey moom mooy sàmm ngor mooy sàmm laa dignité bu ñu jógee ci liggéey boobu ñu teg ci lan l'éthique l'éthique mooy ay jikko yu sell parce que nit ki lu mu am ci compétence ak xam-xam bu fekkee amul jikko yu sell yu dëggu di sóoraale boroomam ci lépp lu muy def moom loo ko jox rek da koy luubal beneen bi mooy yàlla la fraternité la fraternité fraternité mooy lan mooy ñun ñépp ay mbokk lan parce que nit ki julli dëgg walla nit dëgg li nga xam ni da ko yéene boppam moom moo war a nekk lim yéene moroomam loolu tax daal loolu moo ñu dugal ci politique parce que Pastef slogan mooy don de soi pour la patrie yow da ngay joxe sa bopp pour askan wi gis nga à chaque fois centre de transfusion sanguine bi manqué deret Ousmane Sonko day bokk ci ñu joxe deret ba pare invité képp ku bokk Pastef mu joxe deret bu fekkee également vacances patriotiques yi ñu initié woon di ko def Kër Magay ñu amaloon fay tool ñuy bay def nan fa bay nan fa gerte dugub ak lu bëri mais kenn ku ci képp kenn ci ñun ku nekk moo génne ci wàllam financé loolu te daanaka amul kenn ñu bëri sax tool boobu loxob gerte sax yëyuñu ko lépp dañ koo delloo ci ci parti bi. récemment ni organisé nan xombal ay euh, benn ndogu ndogu boobu dañ ni comme Thiès euh, ci boppam 15 commune moo ko euh, moom lay composé. dañ ni quatre communes yi nga xam ne moo nekk Thiès commune bu nekk dafa joxe euh, mille francs xombal bi nga xam ni mooy abrité commune bi joxe cent mille francs yeneen 11 communes yi des ku nekk joxe cinquante mille francs loolu lañ financé activité boobu. tey boo ñëwee macha allah njëmu biram sulay bii kenn ku nekk ci ñun dafa génn cotiser lépp ñun ñoo ko defal suñu bopp parce que ñun lan lan lan gëm mooy nit ki ci boppam da war a am jom participer au développement du pays. aujourd'hui suñ politique ni nga ko jàppee c'est un sacerdoce mooy liggéey fi sabilillah Cheikh Anta Diop euh, mooy sunu idole dañuy inspiré ci moom Mamadou Dia également dañuy inspiré ci moom ak Thomas Sankara Mamadou Dia bi ñu ko emprisonné Senghor dafa defoon benn émissaire dafa yabaloon ay émissaire pour ñu ñëw négocier sa liberté mais bu ñëwee ni ko Mamadou Dia mën naa laa mën nañ laa génne kat à condition ko nga yow nga bàyyi politique mun leen non non loolu mënut a nekk. man politique dama koy def pour un un un devoir loo xam ni àq la sama sama devoir la dama ko war a def bu fekkoon ni c'est un droit mën naa koo bàyyi mais on ne peut renoncer à un devoir mais on peut renoncer à un droit kon ñii ñëpp daanaka koo gis Pastef lan moo ko yëtteel mooy askan wi jëm kanam mooy njaam gi nga xam ne moo nekk ci ñun parce que cent 1960 ba léegi ñuy wax indépendance mais indépendance boobu amul c'est ba léegi ce sont les occidentaux qui décident à notre place Donc à travers Sonko, à travers PASSEF, nous devons libérer le Sénégal. Nous devons également libérer l'Afrique. Le train du Sénégal est, der, est, est euh, à dérailler. Nous le train sur le rails. Donc mbokk yi lii rek laa doon ubbee bu ko defee comme temps bi dafa xat dañ loo tënk ñu jox son excellence euh, monsieur Birame Souleye Birame Souleye Diop bu ko defee mu joxal ci kàddu kon euh, Cheikh Birame Souleye bisimilah. avant ça ma nuyu le coordinateur général du parti PASTEF muy euh, biram Souleye Diop. ainsi que toute la délégation bi mu àndal yëpp. di nuyu aussi euh, Moussa Ndongo coordonnateur de PASTEF de Thiénaba di nuyu aussi tous les autres membres de PASTEF Thiénaba yi nekk fii nii. ah di wax benn mbir rek lii xaaruma ko woon quoi dama ñëw rek parce que quelqu'un comme Ousmane Sonko c'est vrai que je ne suis pas un membre de de PASTEF mais réew mu. am démocratie mais réew mu mel ni Sénégal dafa soxla quelqu'un comme Ousmane Sonko bokkuma ak moom nag mais nit bu dëgg jotee danga koy wax donc moo tax tey woon moo tax tey moo tax tey ma nii ak lu mu xat-xat parce que am naa yeneen programme yi may doxi mais dinaa ñëw saafonteeg ñoom teewal leen seen biis wax leen ni li ñu bokk moo ëpp doole li ñu xàjjale parce que li ñu bokk mooy pour un pays de droit li ñu bokk mooy fexe ba Sénégal li fi daan am won ni ça veut dire que ni politique ancienne yi fi amoon dootu fi am ñu teg Sénégal si yoon boo xamante ni yoonu dëgg lay doon teg Sénégal si yoonu développement et je pense que Ousmane Sonko ak ñi muy àndal ñoo ngi ci joué seen seen partition loolu daal moo ma indi woon damay gàttal gàttal kàddu yi di leen remercier waat yéen ñëpp en fait. xam naa ni Birame dinañ fa jaar moom ziyaare ko moom ak ñoom Moussa Ka fële ca Canaba Gaar ah, dañuy ñëw nag jël parole bi jox ko soxna yi ndaxte nag mënuñoo pare te duñu jox jigéen ñi parole ndaxte ñoom seen taxawaay ci Pastef tamit am na solo lool. man la Fatou Ngom coordonnatrice communale des femmes de Pastef Thiénaba di rafetlu trop euh, ñëw gi fii Birame Souleye Diop ñëw administrateur du parti. nekk coordonnateur départemental bu Pastef Thiès waaye ñuy nuyu aussi tamit suñu mbokk jigéen yi jógee ci département bi di commencé ci Mariama Ndiaye suñu coordonnatrice régionale waaye di nuyu tamit jigéen yi ma bokkal liggéey bi fii ñoom ñëpp gis naa leen di nuyu tamit sama càmmiñ ñi ci engagement bi di baalu ñëpp ak di leen baal ci coono bi di rafetlu nag initiative bii nii ak ñëw gi fi Birame Souleye ñëw ndax lu rëy la ci ñun ku xam nombal tànk bi mu am Pastef mu ñëw fekk si la ba ci sa commune loolu amul lenn lu ñuy wax loolu alhamdulilahi rabil alamin di bokk nag mbégte yi ak mbokkam yi nga xamante ni bii ñoom la fi fekk si woon di leen seet waaye ak sëriñ si nga xamante ni bii ku ci nekk dem naa ci yow feddali kóllëreem digganteem ak yow ñu bokk nag parti Pastef mu doon loo xamante ni bii ñun jigéen dañ ci engagé wu parce que dañoo jàpp ni lu góor man daj jigéen a ko ko dàq te ñun jigéen dañ doon gis ñu duñu utiliser di jël ay 1000 francs di ñu jox di jël ay t-shirt di jox di jël ay kaar di ñu jox pour ñuy feesal mitin yi tàcc di yuuxu Pastef ñoo ni damay def politique autrement commencé ci jël jigéen ñi dafa leen ay formation ci ñi nga xamante ni bii amuñu liggéey ñu defal leen ay formation transformation des produits locaux ba daanaka képp koo xam ne yaa ngi biir Pastef mën ngaa defal eau de javel sa bopp sa kër di ko consommer sa bopp ak yeneen a yeneen yoo xam Pastef di ko def ci noonu nag ki la ñuy soñjee suñu mbokku jigéen yépp di leen wax ni leen ñaari loxo mooy takk sër waaye ñaari loxo mooy takk tubéy lu góor man jigéen na ko dàq ñu takku ba dëgër àndandoog suñu góor yi bay ci sa wewu tànk commencé ci élection locale yi fii ci Thiénaba fu góor ñi teg seen tànk ñu teg ko fa ndax liy defar Thiénaba ñun ñoo ko moom ku ne xam na li ngeen di daj ci amum ndox ku ne xam na ni Thiénaba 38 village la waaye benn sage-femme moo fi nekk mu doon loo xamante ni bi combat boo xam heure bu ma xëyee maa ngi koy xeex te mënaguma fexe ba mu saafaraw loolu nag day wane suñu njiit yi fi nekk seenu cuune ak seen ñàkk man ci noonu nag ci la ñuy àndee nag ak biram Souleye mi incha allahu bi ci élection locale yi mu jël mairie bu cees lépp loo xamante ne bi naqari woon nañu mu mën ñu koo fajal waaye élection locale yi incha allahu rabbi Pastef dina ci dem te dina ci dem ak doole loolu lañ amoon nuñ ci sànni di wax ni jigéen ñi ñu ngi leen di woo di ñu ngi seen teewaay fii alhamdulilahi rabbil alamin yaakaar naa soxna yi yëpp dégg nañ ko te politique politicien bi nga ngay wax yaakaar naa ñoom ñu ngi koy bëgg a comprendre bu baax a baax a baax waaw moo tax ñu ngi adhéré bu baax a baax baax ci Pastef xam dañoo comprendre bu baax ah léegi nag dañuy jël kàddu gi eh, jox ko monsieur Birame Souleye Diop administrateur général de PASTEF et coordonnateur euh, départemental de PASTEF Thiès ñu jox ko kàddu gi ñu teewlu ko bu baax a baax moo sànni ñu ay kàddu ñu déglu ko xel bisimilah. ñu ngi leen di nuyuwaat bu baax di leen euh, ziar di am mbégte teew fii tey ci Thiénaba ci sunu. Euh, ñeenteel wala juróomeelu ñëw fii ci Thiénaba ñëw yi ñu fi doon ñëw yëpp nag ñëwu dox yóbbante ak nekkoon ndawu président Ousmane Sonko la woon ci kilifay dëkk bi waaye ñëw tay bi dafa xaw a wuute ndax ñëwul sunu bopp la Ousmane Sonko ñambaasaale ci ab nuyoom ñëw bi nag ñu ngi ci ànd ak waa Pastef bu département bi te seeni responsable ci jigéen ñi toog fii te ki jiite di soxna Mariama Ndiaye kilifa yi jóge woon nañu xombol jóge nañu biir Thiès am na ba ñu jóge dakaar ñëw àndoon ak ñun pour ñu ñëw def ziar bi ñu doon def tey ci suba moom lañu def ba léegi nii sax ndax pare wu ndax bu ñu fi jógee am na yeneen ziaraat yu ñu war a def bala ñu fay jóge ñuy nuy bu baax sëriñ Moussa Ndongo ak waa Pastef ba di leen euh, sant bu baax ci liggéey bi nga xam ne ñu ngi ko doon doxal fii ci Thiénaba ba ba bis ni ki tey jii di nuyu xalifa Ndiaye mii euh, xam naa ni sant njaay ba ci xaw doy waar waaye jëwam yegsi na ci ñun ci ni mu amee fu doxal dëkk bi fii ci Thiénaba ni mu amee fu jàpp ci dëkk bi jàpp ci lu koy doxal kon loolu dañ ko ci sant toogaayam bii rek firndeel na ko donc Moussa euh, sëriñ xalifa mii ku jar a bàyyi xel la te war nañ ko bàyyi xel bu baax a baax a baax incha allah danañ ko def may sant aussi sama waa kër ndax dama fi ñëw ànd ak sumay nijaay waa nja te ki samp loolu lépp di sama nijaay Ibrahima Dia mi toog ndax ñëw bi sabab bi ziar waa kër gi la woon soog a ñëw seewaay Pastef moo waral bi ñu xëyee ba léegi ñu nekkoon ci kilifa yi dem dox seeti waa kër gi soog a ñëw ci jotaayu Pastef bii. ñu ngi nuyu tamit monsieur le maire ndax yëgaloon nañ ko sunu ñëw fii yàlla dafa dogal. moom mooy kilifa dëkk bi ci lu ñuy wax li tubaab di wax temporel dañ koy nangul cër boobu ndax yàlla mooy fal yàlla moo ko fal def ko maire bi bu ñuy dugg ci dëkk war nañ koo nangul ni moom la fi carte teg nañ ko ziyaare loolu parce que mooy cëram donc ñi ngi koy delloo cëram bu baax di ko seedeel ni ko fonk nañ ko respecté nañ ko moo waral ñu yëgle woon ni ci moom ne dinañ fi ñëw tey ay xat-xat moo tax nekkul biir cere ba tey waaye jotoon na suñu yóbbante te yóbbante na ci ñun ay kàddu yu rafet ñu nangu ko macha allah di ko ñaanal jàmm ak salaam di wax ni usmaan Sonko ci boppam tey ci suba bi ñu waxtaanee ma fàttali ne maa ngi ñëw fi Thiénaba moom dafa takkaat yóbbante nuyoo fii ci kilifa yi wax dëgg yàlla dem nañu ziar kilifa yi euh, xamal nañ leen ni ci njaboot gi lañ bokk ndax ñun jarbaat lañ ci waa Nja kon ci dëkk bi lañ bokk lu amul benn benn benn naatable dénk nañ leen bopp xamal nañ leen ni sunu dox wi nekkul dox pour ñaanal pour ne ñaan leen wala wax leen waa Canaba ñoo ne Ousmane Sonko loolu du teggi hiin du yar amuñu pas-pas boobu ci di leen ko wax li ngeen wax mooy ci njaboot gi lañ bokk nañu ñaanal yàlla mu defal ñu jàmm ci suñu xol defal ñu ko ci suñu xel def ko ci suñuy bët ak suñu doxin ubbil ñu wërsëg ba noppi ba noppi ngeen déglu ma bu baax ñaanal ñu ñaanal Ousmane Sonko ba nga xam ni bu fekkee ni Ousmane Sonko lii mu naal ak waa Pastef bu sotee dafay jariñ askan wi wala lu ëpp ci askan wi yàlla ñu ko yàlla yombalal waaye bu fekkee ni bu sottee day jariñ Birame Souleye ak waa këram muy waa njàkk kese wala muy jariñ Ousmane Sonko ak waa këram kese yàlla ko yàlla tas ndax loolu tax ñu jóg muy lu leer ñun nag moom musaa wax na ko léegi duñu ay politiciens ndax politique duñu jox dara duñu jox poste duñu jox palaas dañ cee wàcc ngir lenn delloo Sénégal lu mu def ci ñun ndax Sénégal moo fay jàngalekat bi nga xam ni moo doon dugal alif ba ci suñu bopp di dugal benn ñaar ci suñu bopp ba ñu mën a tënk ay kàddu di ko génne di ko jox sénégalais yi ñu naan kàddu gi jekk na wala ñaaw na Sénégal moo ñu ko defal Sénégal moo ñu defal tuuti ci as xam-xam bi ñu jàpp ni mi ngi ci ñun ba tax ñu yëkkati liggéey bu day ni liggéeyu état di ko teg suñu loxo Sénégal moo ñu ko defal kon lu ñu yor war nañ ko delloo ci Sénégal waruñu seet Sénégal lan la ñu war a dolli ndax jox nañu ba mu mat sëkk bu ñu joxee ba mu mat sëkk nag ñun ñoo war a simmeeku delloo Sénégal ba mu mat sëkk te incha allahu dañoo fas yéene ànd ak Pastef Thiénaba ànd ak Pastef yëpp ak suñu kilifa muy Ousmane Sonko delloo Sénégal li ñu askanu Sénégal joxoon ci wàllu yar ñu def ci ñun diine ak diine bu mu mënti doon def ci ñun pas-pas def ci ñun Pastef ak xam-xam bi tax ñu naw ñu yàlla doon dëgg yàlla doon dëgg yàlla doon dëgg may wax ni samay kàddu gannaaw li soxna si wax soxna Fatou duma ko guddal ñaari nit laa bëgg a waxal damay wax ak jigéen ndax statistique xam-xam boobu di natt tolluwaayu ay nit nan la ñuy yokke ñoom ñoo jàngale ni jigéen moo ëpp góor ci senegal ñoom ñoo ko bind ne jigéen ñi ñoo ëpp góor ñi ci Sénégal moo tax politiciens yëpp jàpp ni jigéen ay fal waaye ñu ngi fàttaliku jigéen rek bu élection jegesee maanaam juróom benn weer yi jiitu élection ñëpp dañuy fàttaliku ni jigéen ay fal bu ñu leen xasee ba fal ñu fàttali jigéen ba élection jëli soit loolu nag dañoo bëgg sunu jigéen ñi sunu yaay yi yeewu ci ba bu leen kenn naxati ñu xam ni ku ci ne da ngay layoo sa tànneef wala ña wala lañ la tànnee ndax man mi jël sama carte xool Alioune euh, Dia ñu war koo fal ma teg ko fi ndax jàpp ni diw moo ma joxoon junni faluma ka baax ci askan wa dama fal ka ma jàpp ni mooy duufal sama poos te fal gu nekk ni ki ñuy fal di layoo noonu la ko fal di layoo layoo bi nag mën naa bañ a sax yegg àllaaxira ndax fii nga fal ki nga war a fal ndax dalaa jox junni mooy tax ñu ne kilo yàpp dem na 4000 francs wala nga feebar mënoo faju nga koy jàmbar di xaar ñeenti at yu mat pour tànnee fu keneen war a mën ñëw beneen bi mu jëmale ko ci jeunes yi statistiques yooyu may wax dañoo mës a gëm ni jeunes yi lu jëm ci lu defal dëkk intéressé wu leen ñu dëkkale leen du fii ci Thiénaba de du fii ci Thiénaba waaye ci yeneen dëkk ñu dëkkale leen bal bi bool bi ataaya ji yooyu lañ leen si dëkkale woon bu ngeen demee assemblée nationale lu toll ci 160 députés bu ngeen seetee ñi ci am 35 ans jëm suuf matul 10 dëkk boo xam ni bi ñañ ko dénk toog di xalaat seen àllaaxira moo leen desal lan lañ bëgguñu xalaatoo ko ay ndaw. lan lañ bëgg ñu ko ay ndaw. koo xamante ni kii sa diggante sa yàlla dong moo la war a dese nga war a lijjanti ko nooy layee moom bu la place bu la daraja bu la koom këfee ba nga dem toog ci place yooyu di ko buuxanteeg law ñi nga xam ne ñoom ñooy doxal maa ngi fàttali Seyfu Ibnu Yazan premier ambassadeur de l'islam askan wi nag boo waxee ñu ne ndaw la waaye ñu njëkk a topp suñu sang bi ay ndaw lañu tey bu xeex doon am mag ñi dañuy toog ca ginnaaw ne ndaw ñi fii ngeen di jaar taxaw leen ci ker gi nii ngeen di déplacé wu moytu leen kàmb yi ndaw ñi ñoo koy def kon soppi dëkk ay ndaw a koy def bu leen kenn gëmuloon ni liy doxal dëkk bi intéressé wu leen parce que dëkk bi bu sottee seen loxo lay tegu yéen yéenay jariñ seen i waajur li tax sunu yaay yi sonn ak sunu papa yi mooy da ngay fekk ko am 35 ans amul liggéey papa liggéey ba am 60 ans wala retraité mu dese woon ko ay marto yu moo war a dóor moom lay dóor pour forte dépense pour jox ko am 35 ans. rikkuwaay rikkuwaay nañu sant nañu sanc état bi tax ndaw ñu am liggéey ci loo xam du naxa du naxaate ndax liggéey 2012 ba tey ñuy wax 2021. ñu fi ne ñu jox leen trente quatre mille milliards Ablaye Wade dafa def douze ans dix sept mille milliards nañ ko jox may wax ni milliards xam nga luy milliards milliards mooy kuy dépense oo trente mille francs par jour téeméeri at yi di ñëw loolu mooy milliards trent mille francs trente ku koy joxe dépense sa kër téeméeri at yii di ñëw nga koy joxe bis bu jot mooy milliards Ablaye Wade bi mu fi nekkee def na fi fukki at ak ñaar dix sept mille milliards nañ ko fa del ci ñii fi toog huit ans lañ fi def jox nañ leen trente quatre mille milliards mooy ñaari yoon ñu joxoon Ablaye Wade lan moo soppi cana ba ana ñu fi liggéey yëkkati ne seen loxo waaw bu ñu kenn nax dama ni dama ni ku fi jàpp ni déglu leen ma bu baax déglu ma bu baax ku fi ja ku fi jàpp ni ku fi jàpp ni élection bu jotee dañoo nekk marché mbëkkante wala marché naxante ba yow da ngaa war a téye cent mille franc jàmbur wëlbati ko dem voté ko ndax dalaa jox cent mille franc bu laaj lu tax sa doom amul liggéey yaa ko xañ liggéey ndax samul salaire ba mu waroon a jël jox la ko par weer yaa nangu salaire boobu soppee ko doon cent mille franc kot yaa nangu salaire boobu soppali ko doon junni kot yaa nangu doon yaa nangu salaire boobu sa doom waroon na téye ci dëkk buy dox doon sandwich ak set yaa ko nangu mu doon ko ku bëgg nag demal ñépp yeewu nañu ñëpp ay njaacaar lañu bu kenn nangooti ku nax kenn neew ma nag Ousmane Sonko moo fi ndax bu ñu bu ngeen toogee ku nekk xoolal sa bopp bu gis ni gënu fi bu ko kenn ànd ak moom. waaye bu ma xool ni moo fi gën wala boog njort nañ ni moo fi gën mën a ndax moom euh, moo sàccoon wala moo waxoon moo defoon te nga njort ni moo fi gën loolu mooy yaa ngi wut lu ñuul ci biir sow mu weex tàll boo ko ca deful doo ko ca fekk léegi nag ñi bokk ci Pastef laay waxal militant wu Pastef laay damay wax ni billaay ku amul wërsëg lool doo bokk ci fi waxuma nag couleuru Pastef jikkoy Pastef laay wax ndax jikkoy Pastef moo waral Khalifa Ndiaye miy toog fii ah mu ne ma góor a Ndiaye kon mi fi damay wax ni jóg leen koo xamante ni ki yàlla tànk la la may jëlal sa tànk dox dugg ci kër yi toog naan amuñu oto wala amuñu carburant bu ngeen xamoon fi ñu jaare ba mu yegg si fii da ngeen xam du woon carburant nañu jóg nañu jóg bu ñu bu ñu xeeb benn kër même kër gi nga xam ne dañu ci def la ne faruma ak yow ànduma ak yow duggal wax ak moom xam nga lan moo am dëgg moom benn xeet la am dëgg benn xeet la am da koy xeeñu ne ëskëy wala nga xeeñu ko ne uhum waaye boo demee bu tëdd sa lal sa njëgaane dina la yéene la sawaay li mu la waxoon sànq dëgg la kon jóg ñi bokk Pastef wala ñi bëgg Sénégal soppeeku ci Pastef ci dëkk boo xamante ni bii dañuy nangu ne dafa jot li ñëpp bokk ñëpp jot ci ndax yàlla daf ñoo nakkal te dañoo am ñoo xam ne ñi dañoo gedd lañu yàlla nakkal ñun dong la yàlla may ci suufu Sénégal suuf su barkeel lool lool ba ressources yi nga xam ne day am ci benn dëkk ñëpp naaw jëm fa waay lu moom am Émirats arabes lan la am laa wax pétrole dong la am pétrole dong la am yàlla may ñu ci suñu suuf si pétrole bu dul jeex ba ëpp loolu ah gaz Russie est-ce que xam nga lu tax Russie tubaab bi ragal ko gaz la am di ko jaay waa wër yàlla lim ñu may ci gaz buñ doon natt askan yi ko am ci àdduna wërngal këpp Sénégal mooy doon juróomeelu askan bi ko am lan lañ yàlla xañ est-ce que xam ngeen lan mooy jamaa xam li topp ci jamaa lan la ñu ngi jóge zircon yéen a ma gën a xam li zircon ndax ci Tiwaawan gii lay bale ak ca Casamance gee moo topp ci jamaa yàlla lu ñu xañ phosphate dina duma ko wax ndax phosphate ñaari dëkk ci Afrique ñoo am teneur ci phosphate bi gën ci àdduna Sénégal ci la bokk tey boo demee ICS fii ay indien ñoo fa nekk boo demee mbay mbay nit presque nit ku ñuul dëkkatu fa yàlla lu ñu xañ ñun amuñu naaj amuñu naaj naaj mooy defar solaire moo tax kenn dootul fay courant te mën nañ ko trent 34 mille milliards lañ jox waa ji su bëggoon a def solaire ci dëkk bi ba ku ne sax boo bëggee retaan sa boo signé lamp tàkk mënoon na fay nekk waaye mu dëkk ci dañu def bu ñu signé doo gis loolu deret ci ñu xonk jël te wala lu weex tàll lu yàlla xañ dama ni est-ce que jàpp ngeen ni jën ñoo ko ci suñuy géej te maa ngi xamal ne leen jën buy judd fële ca Afrique du Sud buy naaw di féey ba yegg si bi ci lay doon fi muy mate li nit ñi soxla ci jën da ngeen gisati jën ci dëkk lan lañu yàlla xañ kan wax sa du sa jigéen ñu bees jigéen ñu kii xamatuñ ko yaa xamatuñ ko coof xamatuñ ko capital xamatuñ ko léegi fu ñuy jëlee jën ci biir tool yi maanaam ñiy jëmbat jën fa la nit ñi di amee jën waaye géej gi moom jaay nañu jox nañ ko ñeneen waaw askan woowu boo ko amee am ku la ne dafa jot lu ñëpp bokk ñëpp jot ci dañ dul ànd ak moom pour li ñu bokk ñépp jot ci bu jigéen bu soxlaa faju dootul fay ba sa doom bu waree jàng dootul fay lan moo ñu tere ñu am les meilleures écoles di Sénégal bër gi démb nañoo seeti ay soxna am soxla su jóg nañu jóg ba ñu bàyyee yuuxu ndaare la Sénégal yàqu déglu baax li mu wax dafa ni ba ñu bàyyee ci école yi di yuuxu ndaare la Sénégal yàqu parce que xale daan nekk ci classe ñu def composition ñu ne kii mooy premier ne kii mooy deuxième ne kii mooy troisième ne diw mooy ndaare bu ñu wàccee ñu topp ko di ko mbawar ba biir këram di ko yuuxu ndaare bu ñu demee yaayam am na ko naqari baayam am na ko naqari ñu duma ñu duma ko mu jàng di bañ gàcce ci askan bañ doon ndaare moo tax xale daan jàng léegi école bi nag fexe nañ ba léegi amatul classement maanaam amatul kuy jël pay amatul kuy jël ndaare moo tax kenn jàngatul kenn xamatul ko aay kenn xamatul ko bon wax benn anecdote kese dafa xale boo xam ne bi nee nañ ma dafa jël ndaare ca classe ba waa kalaas bi topp ko di ko yuuxu ndaare ba seen biir kër way jur bi digg yuuxoo bi génn taxaw ne kii lu xew ñu nekk ko sa moo jël ndaare moom la ñuy yuuxoo mu ne moroom dugg leen ci biir kër ñëpp dugg ci biir kër mu ne xale bi jógal taxaw mu jóg taxaw mu ne ko ndaare ndaare yuuxu leen yuuxu leen ñëpp tiim xale bi di ko yuuxu ndaare xale boobu boobu la gën ndaare waaw Sénégal léegi classement amatul dañoo bëgg ñëpp yam te bu ñëpp yamee ñeen ñi gën seen cër dama lu loolu mooy kàddu yi bëggoon jox waa parce que jóg ngeen dugg ci kër yi fenn soriwul pas-pas boo ko defee naaj dootul tàng ndoxu taw dootul bari xaaxaam dootul jame bis boo amee victoire xool victoire rek doy na fàtte say góor salaamaaleykum wa rahmatulah Eh, leer na eh, yaakaar naa ni dund na ci nopp yi te tàbbi na ci xol yi tamit doyu luñ ci nag waaye xam nañ ni contre temps boo jógee fii yaa ngi jëm ci ñeneen waaye yaakaar naa ni dégg nañ ko bu baax a baax a baax waa Pastef tamit ñaax nga leen yaakaar naa dégg nañ ko te xam nañ ni leen xaar eh, ñu amit ci jotaay bi ay gan yu fi ñëw sànq di ay responsable politique muy monsieur Gora Ndiaye doon responsable politique au niveau de du PDS mooy le coordinateur communal PDS bu Thiénaba moom teew na fi sànq ak Fallou Cissé moom tamit di responsable politique waaw Gora Ndiaye moom ngeen gis ni muy nuyoog Birame Souleye mooy le coordonnateur euh, départemental du PDS euh, ici à Thiénaba euh, teew na fi tamit Fallou Cissé wax naa ko sànq responsable politique la ak euh, Baye Mor Dieng tamit euh, teew na fi responsable politique la loolu rek euh, day wane tamit ni langue politique yi Thiénaba lépp dañ ko teg ci rafetal rek ñoo xam ne boo ko ñoom parti nga xewle mbirum politique ba pare invité leen ci invité leen ci ñu ñëw ci loolu yaakaar naa lu rafet la noonu rek lañ bëgg politique di ko doxe waaye du ay saagante ka xasante déedéet bëgguñu mu doxe noonu donc dañuy jox monsieur Goré Ndiaye Euh, micro bi mu sànni ci tuuti ay kàddu rek euh, ñu dee si. gërëm su leen jóg nga xam te ni tey moom mooy ci lu fa jataay bi ci wàllu Pastef ni sant bi ngi lay dalal bu baax gërëm su leen di am mbégte ak contentement ci teewaay bi nga teew fii ci dëkku diine dëkku al mujaahid Maam Ahmadou Ndak Seck sa ñëw bii yàlla na yokkute ci yow di yokkute ñi nga àndal mais di yokkute ci parti bi nga xam te mooy Pastef di nuyu la coordonnateur Moussa Ndong nga xam ne suma ndijaay la euh, di suma xarit ñu seq lu bari xam naa ni euh, du lu ñuy yaatal mais ñu koy bu baax di nuyu également mon frère Khalifa Ibrahima Ndiaye di euh, jiite mouvement Thiénaba Horizon di nuyu sa jigéen yu baax yi nga àndal mais également di nuyu responsable loolu yu fi nekk yëpp di leen. di leen sant di leen gërëm ak kilifa yi nga xam ñoo fi nekk yëpp am mbégte bu baax ci lii ngeen xam ne def ngeen ko xam nga boo joxee koo xamante ne nii macha allah lim fi wax ci ay njariñ nga jox ñu kàddu gi danay am jafe-jafe bu mën a continuer waaye vraiment ront nañ bu bari tey jii ci sa waxtaan yow euh, Birame Souleye Birame Souleye Diop gën nga ubbi xel yi waaye di la xamal ni sa naa yi fi nekk di politique bokk Pastef ñuy jaxasoo ak ñoom ci terrain bi def naa ñu ngi toog nii mën naa ci ñu bari à part coordinateur yaa Moussa Ka yaa Amadou Niane mu ngi nii Pape Diop donc di ay nit yoo xamante ne nii euh, ñu ñu ñuy xeex injustice mais également di xeex li nga xamante ne nii mooy mbir mu doy waar maam ci suñu réew mi comme ni ñu ko waxee ñoom jàmbaar lañ ci ay naa lañ parce que fii am na benn collectif bu naan euh, sàmm moomeelu Thiénaba kenn mënul leen ca di la wax doo àggee nga àgg ko président Ousmane Sonko li leen doon doyee muy ndaw loo xamante ni nii li leen yitteel mooy avancement wu Sénégal mais avancement wu fi ñu dëkk collectivité ñu ngi ciy bay seen waar bu baax a baax baax a baax donc boo demee nga wax ñu président Ousmane Sonko loolu bu baax jigéenam boo seet bi Fatou Ngom fàttewuma ko ñoom ñëpp ay xeexkat lañ ay jàmbaar lañ ñu ànd ak ñoom terrain bi guddi ak bëccëg loolu nag politique rek moo ko man wax dëgg yàlla bokkuñu parti politique ñu mais gis euh, euh, euh, maanaam vision yi benn la mais également objectif yi benn la def naa ni sama ndiyaay du ma bàyyi mu wax lu dul noonu président Ousmane Sonko bi mu fi ñëwee bi ma ko présenté nee naa ko ñu ñëw bokk même objectif li ñuy xeex mooy injustice ak li nga xamante ni doxalin bu bon la bu am ci réew mi di ñaan yàlla yàlla jële ko fi kon ku ci nekk war nga ci bay sa waar def ci liñ ci man maanaam sa kéemtalaayu kattan ba loolu jóge fi kon nag kenn la kenn la ci liet naa yi ne muy Ousmane Sonko ñu ngi koy ñaanal moom yàlla defal ko wér mais également ñi nga xamante ni bokk nañ moom ak moom xeex bi ñoom ñëpp yàlla defal leen wér yàlla mi nga xamante ni moo moo man moo am moo xam ci gën ci réew mi ëllëg fi Macky Sall la jógee yàlla na ko yàlla indi teg ko fi jële fi Macky Sall bi jaahinal Moustapha sallallahu alayhi wa sallam mais également jële fi ñi nga xamante ni ñoom la teg ci gox goxaani ñuy bëgg a rey nit ñi loolu aussi fa ñu wax ko parce que euh, wax nañ ko ca dakaar keroog waa ji ma ko doon wax maanaam feebar commune yëpp a feebar mais jàpp nañ ñun feebar bi gën a garaaw ci commune Thiénaba gii la maanaam ñun dañoo am loolu ñu naan wang xam ngeen wang ni muy def gerte loolu lañu am fii dañu am nit koo xamante nii mu ngi suñu commune bi fii ni wang di def gerte moo ko def suñu commune bi kon nag dañoo bëgg ñu takkoo tout parti politique yi fi nekk ñu nekk benn def unité jëm ko fee jële dul loolu ah musuma bi day continuer ñu ngi leen di sant di leen gërëm di asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. benn kàddu wala ñaari kàddu euh, benn kàddu bi yàlla daf noo baaxee nu yàgg a topp euh, yëngatuy waa Pastef Ousmane Sonko ñi mu àndal yàlla dimbale nu ba démb. ma demoon ci sama maniin ci gëmal sama bopp ne danoo war a liggéey ànd booloo jariñu ñu dem ca tool ya bëgg a tàmbali liggéey ba yàlla dogal ma dégg bande annonce bi ñu ne ma Biram Souleye Diop day ñëw fii ci Thiénaba ma dégg ko démb ma ne kon yoon wi dagge di na naa daw ndax fii ci suma gox la maa ngi fii ci Kër ma Madaro di ab sëriñu daara jiite ñu bare bare bare bare li tax ma ne ma ñaan benn kàddu mooy sëñ Biram dafa wax ju am solo ci soññ bi mu soññ waa Pastef ñu jóg te góorgóorlu bu baax a baax këroo kër porte ñu fexe gëm seen bopp yëngu loolu daf noo dal ndax nun eh, ba yàlla dogalee nu xam ne lii ab liggéey la dañoo fexe ba sas sunu bopp nu lu mu néew néew néew nun danañu fexe ba gëmloo lu mu néew néew fukki nit yoo xam ne mbooloo topp ci seen ginnaaw yoo xam ne danañ leen gëmloo ne Pastef lañu war a ànd liggéey loola yàlla may nanu beneen bi ci des eh, bokk yi ñu bàyyi xel ne waa Pastef Ousmane Sonko ñu mu àndal dafa am lu nu niru sunu sang bu baax ba muy Omar bin Abdul Aziz lii Biram sulay doon wax benn bis Omar bin Abdul Aziz dafa toog ak kàngamam ba koo xam ne ña ko dénk lañ ko dénk ci état ñu ñëw toog ci saal bi ñu taal làmpu pétrolu état bi ñuy waxtaan ci masala yu aju ci askan wi bi ñu demee deme dem ba lépp jeex ñu dugg ci seeni domaine ñoom ñaar Omar fay lamp bi ëf ko ñu doog ca lëndëm ga mu laaj ko lu waral lii mu ne ko ah dañ doon waxtaane lu jëm ci askan wi te ñi ngi doon taaloo pétrolu askan wi li nu ko may mooy askan wi li doon waxtaane seen mbir bi mu jeexee na nga xam ne man ak man la man ak yow la sunu mbir kese la ah loolu intérêt personnel la loolu moom duñ ci taal duñ ci taal di ci jëriñoo loo xam ne ci poosu askan wi la war a dem mu ne kamaj lamp ba daal di koy fay loolu daf ñoo niru suñu leader bi macha allah Ousmane Sonko ñu ma àndal yàlla na leen yàlla fay te yàlla jàppale leen alhamdulilahi rabbil alamina ca kaw ca kanam dañuy fas yéenee ñi nga xam ne dañu fay bëgg a jëmbati tubaab xonqon nopp yi nga xam ne amulunu benn njëriñ ñu fas yéenee def loo leen la leen Lat Joor def woon ba mu taxawee ne tubaab mu ne cóob mu ne ko suqi nga mu ne ko waaw ba wëgg may ngooñ dañoo fas yéene noot tubaab yi ba ñu dellu ci seen géem bañ a am ci suñu réew mi dara luñ fi luñ fi wax ba mu xam incha allahu taala nun ak waa Pastef yàlla na yàlla def tawfiq yal na yàlla defal jàmm yal na yàlla defal tawfiq yal na yàlla yóbbul defal nu li nu bëgg incha allahu taala te mooy eh, lii ngeen jàkkaar lool Ousmane Sonko ak ñi mu àndal toog ci réew mi doxal seeni xalaat ndax askan wi yëpp mën a jëriñu ndax mbooloom yëpp gis seen bopp ci li nga xam ne moom la ñu war a gis yàlla na ko yàlla defal innahu waliyu zalika wal qadiru alayh rabbana atina fi dunya hasanatan wa fi laxirati hasanatan wa qina azaba annar rabbana atina fi dunya hasanatan wa fi laxirati hasanatan wa qina azaba annar اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب العالمين اللهم أحبب علينا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة يا رب العالمين